مدود كلي أبدا بالود وتامني أثر الوقت مدود كلي أبدا بالود وتامني أثر الوقت asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajuma fukki fan ak juróom ci weeru tabaski ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci gàddaa yonente bi salallahu alayhi wa sallam dëppoo fukki fan ak juróom ci weeru juillet ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñaar fukki fan ak juróom bokkul ci lim yu fàtte lim bu rafet la kon tey ci ajuma ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ko ca daloo fukki fan ak juróom ci weer wu nekk nag deesu ca yeggale ab sëy deesu ca tukki ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi lay ñaan nga musal ma ci xam-xam bu amul njariñ ak ci xol bu ragalul yàlla allahumma inni audu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yaxsha xadiisu bis bi yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na dee leen ñaan yàlla xam bu am njariñ te ngeen di muslu ca yàlla ci xam-xam bu amul njariñ xadis bi ibnu maaja moo ko nettali qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam salullaha ilman naafia wa taawadu billahi min ilmin laa yanfa rawaahu ibnu maaja waxtu julli yi suba waxtu dana tàbbi juróom waxtu bu tegal fanweeri simili ak ñett tisbaar benn waxtu bu tegal ñeent fukki simili takusaan ñeenti waxtu bu tegal ñeent fukki timis juróom-ñaari waxtu bu tegal fanweeri simili ak juróom-ñeent yu fukki saa ak juróom